jërë ngeen jëf mbokki xibaar yi dañ koy door ak uh, juróomi doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakken ñaar am ay gaañu gaañu yu mitti ci accident bi nga xam ne uh, moom moo am ni ki uh, démb ci altine ji bi nga xam ne moom la ngoon jot ca diwaan bu Kédougou aw pick-up woo xamante ni nag chauffeur sa nga xam ne moom moo ca nekkoon dafa rek ñàkkoon aw contrôle ba tax na itam mu daal di euh, dëgmal ñenn ci ñoo xamante ni nag dañoo tooge woon ca weggu li nga xam ne nag moom moo di euh, tali bi bu ñu sukkandikoo euh, ci ñenn ñoo xamante ni jot nañoo yëkkati ay kàddu ñeneen itam ñoo xamante ni àddunañ ci di xam ne rek ne boobule pick-up nag mi ngi ko bu aw société minière moom moo ko daal di moom daañu dikkaat ci boobule xibaar ak suñu ndaw ya nga xam ne euh, ñoom ñoo ñu toogal ca diwaan bu Kédougou ak la ko wër Ibrahima Diaba Xate mbokk yi